waaw damay laaj léegi jamono bi dafay aajo ñu waxtaan ci yàlla wala ñu waxtaan ci kuy jëm ci yàlla. bàyyi leen bàyyi rek xam nga li mu war a waxtaan kon nañ njëkkee ci bëgg nga xam ne mooy maye jëmmi yàlla bëgg mooy maye yàlla ci boppam bëgg mooy te ndaar ba xam da nga xam ne mooy bëgg ci bi ci la tudd bind leeral xaalisatu Muhammad la am na yenn góor bu nekk te fii ci Sénégal dafa wax ne wa innahu الباب من نوره نورا نورا نورا النبي علينا place boobu tibb ci jëmm place boobu moo tibb moom ñaar ñii ne sa jaani bi ñii ne déedéet ngaa jox kaso bi jaani bi comme tubbee bi ñu yónni tamit am place ci jëm yàlla boo xam ne dañ ko cay ràññee kon kon jëmbal yëpp la tasarufaat ci bëgg bëgg googu moo def ko mën a jëm yónni tamit moom ko mën di nekk xalifa bi jëmbal yëpp la def sa daal ak li jëmam jëy rëy rëy rëy rëy rëy jëmam jooju la def mooy iran ndax xul kullun min indillah lépp loo mën a gis rek ma nga fa yàlla fa yàlla la bare ko di ko fi yàlla kon nag iraada bi rek moo ko mën a xaajale iraadatu nag bi nga xamee ne yàlla tubb na ci boppam loolu ñu wax iraadatu benn façon comme ko tuddee mu def iraadatu iraadatu boobu mu nekk tajaliyaat yi tajaliyaat tajaliyaat yi yëpp buñ matee buñ ci nekkee ba jógee koofi ne buñ demee buñ àggee foofa kamaa laay waat tajaliyaat yi nga xam ne nag ma nekk ci diggante ak yàlla ak jaam yi nga xam ne lii dañ ko tuddee muy yàlla lii ñu tuddee ko jaam yi seen diggante li fi nekk xëdratu iraadatu xelmun xayaat sàmmam basarun kalaamun sibari maqatul moom la def xuduratu mooy suñu kàttan iraadatu mooy coobare helmun mooy xam-xam xayaat mooy dund boo xam ne borom moom du dee samxam dégg boo xam ne bii lu waaye wax ñu koy bu ko yore loolu sax mu koy dégg bësurun gis boo xam ne bii nii lii dund ko kullu xay nañ ay kullu sax seen gis boo xam ne moom ngay gis boo leen bindee fii ak jëmm yi ak fu ñu mën a nekk yii si waajibaat juróom-ñaari mbir yii si waajibaat yàlla na bi mu bindee bindee si yëpp ba pare mu tëjee yaatu tëjee yaatu yëpp ba pare malaaka li muy rëy rëy dañuy ko juróom-ñaari maxaama yi ak du mooy xam importance dañuy ko juróom-ñaari maxaama yàlla yàlla juróom-ñaari kàllaama yàlla yàlla nit ñi nit yàlla rek allahu akbar allahu akbar waa maa nekk yële saa yàlla moom rek moo dajale juróom-ñaari maqaam yàlla damaa dama xamoon doomu aadama rek xamoon naa kalaamu muy juróom-ñaari maxam lu dul doomu aadama mën a laa boole yooyu yëpp yow doomu yaa saa wut ni tey yow ki bëgg yàlla inaan nga ñu yàlla jaaxal naa ko ndax nañ la xalifa fan nga wuutu ma ci arbi ci kaw suuf doomu aadama ci àgg boobu comme maanaam yooyu moom rek moo mën a nekk xalifa yàlla ci kaw suuf feeraw yi wax dëgg yàlla xam jox nañu ko téléphone yàlla kon nekk na téléphone yàlla da nga koy wóor ci may yi yëpp xëdratu ci yow iradikan ci yow sàmman ci yow basiran ci yow kalaaman ci yow ak yëpp nga soxla ma complété nekk téléphone yàlla ku dul ku dul jamono booy may booy mën a xam buy ñaari maqaama buy ñetti maqaama waaye dajale juróom ñaari maqaama yi loolu bàyyi koy kuy bàyyi ci jamono bi moo koy ku nekk ñu ko def saa bàyyi yii danañ ci ñëw mu surtout nag li ci gën a important mooy xam-xam xam-xam mooy maanaam boo xam ne ku ko jàngee rek da nga xam ne ci la jëf ku ko am mën ngaa mën ci la jëf waaw man am nañu nit ñi bokkul côté rek man koo jox ci rajo waaw bu ñu amee ba ci am du bañ. mën na koo may xayaat mën na koo may samp muy dégg waaye samp bi nga xamante ne mooy ñëw xayaat bi nga xamante ne mooy ñëw bësul mën na ko may muy gis waaye bësul nag bu seen fan dafa am koo ñëw. fii nag bu ci bësul boo ko defee yaa dafu kulli shay'in wa yuhiitu kulli shay'in maa ngi te bëgg na bu demee ba nekk loolu bu dëgg dëgg dëgg bi léegi yàlla yi yëpp ak li ñuy bëri bëri bëri bëri te sama xamal sëriñ sëriñ fin yàlla taala nee na ëpp na bu ñu ko xaalee murabba murabba maanaam bu ñu ko doon nekk xaati murabba